asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku ne maa ngi koy nuyu turam ak santam euh, man Demba man Demba Naar Sow laa tudd euh, ci daral foora bi laa nekk euh, opérateur économique la éleveur éleveur la vice président président bi ñu teg tey mooy président Arona Sow à partir de aujourd'hui bi Arona Sow mi taxaw ci sama wet moom mooy président daral foora saba moom la waa Foora tànn moom la waa Foora tànn lu tax ñu fol ko lu tax ñu fol ko mooy daral bi dafa am coow daral bi député Sané daral bi niñ ko seere baaxul niñ ko seere nag baakul dafa am ay parti yi seere woon li génn ci daral bi dañ koy lekk wala ñu koy paacoo ñi koy seddoo ci seen biir loolu ma tax lool lañu ñu mu jóge fii ñi nga xam ne daral bi waroon na am ay dayo yu mag wala waroon na am ay daral bi waroon na avancé fii dara dara avancé wul ci daral bi ñi nga xam ne seen intérêt poste rek la ñu nekkal ci nekk ci daral bi loolu moo tax daral bi mënul avancé sama daral bi tey boo ngeen xoolee kenn mënul foofu tey def conférence de presse kenn dunul foofu def réunion kon xam ngeen ne alal bu bu nekk fii ci daral foora loolu sax def ruus lu ci Sénégal daral bi nekko ci capital bu nekko ko toll na ci Ndakaaru nga ñëw tey mënoo foo def réunion mënoo foo def conférence de presse ndax daral bi nu muy inande nu muy bare ay poto poto xam nga loolu jaaduwul saba loolu même état bi waroon nañ ci jàpp kon ñun ci suñu bopp ñun ñoo ci waroon jiit ñun dañu koy fol pour pour président daral pour wóolu ko pour ñu jiitul ñu daral bi ñu toppa ci gannaaw ñu gindil ñu wala ñu dindil ñu suñu coono wala li nga xam ne suñu mébét li ñu soxla eggale daral bi ñu eggale foofu daral bi priorité am mooy boo ko jiitee pour am yéer mooy nañu defal daral bi mooy ni ñu seere gestion daral bi nañu ko na gestion daral bi nañ ko seere normal li nga xam ne ñëpp a ko bokk naka ñëpp xam fu muy fu muy génn ak fu muy dugg ñu organisation bi nañu xam lan lañu ko fa mooy génn ak fu muy dugg waaw sécurité la bugg bëgg encore ci daral bi daral bi la ñu bëgg kat daral bi boo ci xëyee nga nekk nit wala nga ñëw nga xam ne lii daral nit ñi ñoo ci nekk kon daral bi boo ko gisee ah daral bi amul benn assainissement amul dara da ngay mel ne fii da ngay yaakaar ne mala kese ñoo fi nekk te même mala yi fi nekk sax nit ñi war lañu leen jox cër kam lu tax nit ñi ñoo koy ñoo koy jëriñoo kon waroon nañu ko defal li nga xam ne sax mala yi tey poste de santé war na fi am ci biir daral bi ku fi gaañu sax ay nax lañu dikkal te nag tout le temps foo ko gis moom mu ngi ak ngannaayam kon boo dikk am moom tout le temps war nga am poste de sante saay bu nit amee fii benn gaañu gaañu bu ndaw balaa mu dem hôpital nañ ko defal premier juin mu mu mu faj ko fi bañ ko mënul fi faj ñu jàllale ko hôpital ñun loolu la ñu ñaan. cathédrale bi nañ am sécurité am leeraay bu nga xam ne ku fi ku fi ku poso poso am sax war dafi euh, guddi sax boo ko waree nga gis ko sax loolu moo tax loolu moo loolu mooy yokk sécurité bi loolu moo tak càcc bi nekk ci biir daral bi loolu génn fi sax daral bi am na càcc yi nga xam ne chaque année li fu fi sàcc de deux cent bëf kon loolu yëpp ñàkk organisé ak ñàkk sécurité loolu moo koy def wàllu ndox mi ndox mi tam ne wax dëgg yàlla waroon na ëpp nu mu mel sam président Macky Sall ñu ngi koy jërëjëfal moom la ñu waroon sax njëkk félicité sabi bi mu ñëwee zone sylvopastorale yëpp la def ndox kon daral bi moom mooy budul woon càmm am na moom daral bi mooy bopp bi kon daral bi moom la ñu waroon njëkk defar avant ñuy defar sax càmm bi kon daral bi ñu ngi leen di ñu ngi leen di interpeller gouvernement bi na ngeen ñëw jàppale ñu ci daral bi ngeen defaral ñu daral bi sama njoobeen kaa nag euh, moom la ñu dekk denk ministère de l' élevage kon Samba Ndiobène wax dëgg yàlla ñun ci sunu côté euh, taxawaayam des na ci sunu côté loolu man dama koy wax saba lii li tax ma koy wax am na benn financement bi génn woon ci ministère de l'élevage mooy financement opération de tabaski financement opération de tabaski dafa am ñi mu jël fooraa mu teg ci ay loxam ñooñu si rukk la ñu nekk ñuy woo seen nit di leen financé di leen signal financé sax financement bi nga xam ne gouvernement Sénégal moo ko def sénégalais yëpp a ci yem dañu waroon bañ la koy autoriser wala ñu nee la ñu demal demal foora lii da nga waroon ñëw woote réunion nga ne ñun am nañu autorisation pour ñu signal waa foora ñuy jël xaalis pour opération tabaski kon ñoom ci seen biir la ñu wootante di dee ci seen biir particularité la ñu def ci ci ci financement bi loolu nag ñun ànduñ ci tey ànduñ ci bëccëg te incha allah danañu fekk gouvernement bi dana ko te incha allah danañ leen ko yegal te danañ yegg fu mu war a yegg yëpp danañ leen ko yeggal